dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñeent c'est vers mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale Journal, résultat examen virologique yi ma leen di liral si téeméer ak juróom fukki ben test fukk ak ñaar ñoo ñëw positif muy ñeenti cas importé ak juróom ñetti cas yoo xamante ne kaa contact la ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi juróom-ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee si waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan si bésu tay bi ba ñu commencé ak légui témèr ak ñen fuk ak ñaari nyar lañu déclarer fi Sénégal ñaar fuk ak juroom ñaar ñoo ci wër bon deug mën nañu wax né témèr ak fuk ak juroom ñoo nekk ci hôpital ñu hospitaliser leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen top bu baax ay ndigalam pour que ñu mëna daan covid 19 Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 28 du jour. Ce dimanche 29 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie.